Assalamualaikum, assalamualaikum. Aku làmb ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm <coughs> di di ziar di doksan jox bu baax a dilen a bu baax a baax a ha ah da ngeen taxaw naan ay dëkk bi yëngu na gis naa yi ñi nga dañuy di martaat nan video amul nañ ko dugal nañ ko dugal buñ ko fi dugaloon tamit li ngeen wax mooy non bi ni mu def du yoon yëfu jullit jullit day suturaalante nangam nangam. war yenn doomeraam yi du ma leen tontu ndax ñoom ay ay saxkatu koy comme li may wax rek saa ne bu ngeen gisee góor di daw ci ginnaaw góor di ko maral tar rek xamal ne saxkatu kooy la góor jigéen la. dèjà moo tax am na ñoo xam ne dama am sax seen jot pour tontu leen bañ nekkee ci làmb ji ba tey kenn xamu leen ci lépp luñ leen xamee mooy markooy markooy ak martaatu góor kese. amul lenen légui nak man wax dafa dama man je défie à tous les sénégalais et sénégalaises je défie damay défier la la wax dama né parce que Serigne Touba Mbacké ñi bokk ci vidéo yi yeen xam ngeen seen bop sama numéro téléphone am ngeen ku leen djégé ku ko am leen nday sama numéro téléphone ngeen xol mu teumbal leen nday vidéo yi ngeen sétane seen bop d'abord am na ñu ko ci jotaama ah. am na ñoo xam ne amoon nañu sama numéro téléphone li mu njëkk a def mooy yónnee leen ko ndey yi ci seen seen téléphone ñu gis ne coach Bakary moo yor affaire yi benn ñaareel bi mooy lan daanu dama ko fiy tere bu dee mbër nga daanu laa fiy tere maanaam boo ma tee combat booy daanooti nga daanu daanu bu daanu daanu góor yàlla way amul ciix nga xool fooy tëdd déedéet amul diw moo ma liggéey diw moo ma def nii déedéet man dama la man maay défier nday yi gën waxuma góor jigéen yi gën di mujjee nii di wax nii di rëy nday làmmiñ nii di wax de considéré wu ma leen sax ñoom bu fekkoon ne man man maay seen baay damay jël nday diwlin saaf seen nday bu yàgg wax ji jeex tàkk ndax amuñu nday benn njariñ ci dëkk bi ñoom wax rek la ñuy def benn njariñ amuñu ko tekkiwuñ tekkiwaane wuñ seen baay tekku tekkiwuñ ci lépp luñ ko wekk mooy mar ak sax kooy kese amul leneen léegi ma ñëwaat ne leen nday mbil yi nga xam ne ñoom ñoo bokk nday ci yi man yéen laay waxal yéen seen jëmmi bopp défier leen ma lu leen di xaar génn leen ndayam ngeen défier ma man seen ñaan njëkk ak teraanga yi doxul ci sama kër de ñaan njëkk ak teraanga moo doxul ci man dama leen koy wax léegi défier leen ma man man maa leen di défier ne leen yéen bu bëggutuma gis nit yor ndey micro naan nabi nabi bu leen ko fi waxati bu ngeen yoratee nday micro toog nday ci plateau ngoon nga nga naan nabi lay tëmbal ndey sa vidéo nga xam ngeen di wax su waa ji dama ne la barke man dépend man sama argument man man maanaam man maay xëy sama yaram neexut xam nga ma kii ma katt nday vidéo fu muy mujj fan lay mujj fenn lan ngeen mën ci man def leen ko def leen ko man ma leen di naa fi gise ci kilifa promoteurs yi yéen laay waxal promoteurs yi yenn promoteurs yi damay gën a leeral man bi man Mansour bokku ci Aziz Ndiaye bokku ci Mansour bokku ci Aziz Ndiaye bokku ci Mansour bokku ci dégg déggoo ma de dama ne leen Mansour bokku ci Aziz Ndiaye bokku ci Bawol Production bokku ci man maa wax ne Mansour bokk ci bu parcelle bokku ci Aziz Ndiaye bokku ci Baye Ndiaye bokku ci nuñ koy waxatee sax euh, Bawol production Assane Ndiaye Bawol bokku ci man maa wax loolu man maa ko wax man bu dee mbër yi Balla Gaye bokku ci Modou bokk ci mbër yi ma ngi lay wax de Eumeu Sène bokku ci mbër yu mag yi laay wax de mbër bu mag rek Balla Gaye Gris Bordeaux Modou Lo Eumeu Sène bokkuñu ci li may wax leer bu dee mbëri ci topp nag waaw ah, foofu la wax ji nekkee <laughs> wax jaa ngi noonu moo tax ma leen wax ne leen ndànk rek bin

huit personnes ñoo fa ne damay waxaat mu leer manager yi <laughs> manager yow <laughs> xaw ma ay manager ngeen xaw ma ay chefu ay chefu ay chefu ay chefu quartier ngeen xaw ma la ngeen mais ndax manager yi moom manager yi moom dama leen dama leen jégg dama leen naa leen moo tax kenn du Max Mbergane kenn du Max Mbergane Maxime Bergane du góor boo xam ne nii jigéen da koy pëtaxal kenn du Maxime Bergane kenn du Max Mbergaan du góor buy jigéen di pëtëxal damay waxaat saa ne kon Max Mbergaan moomu dama leen koy waxaat kilifa la kenn du Max Mbergaan kooku kilifa la dama koy waxaat saa su ne macha allah Max Mbergaan daanu Max Mbergane reporter yi nag yéen dégg naa leen ngeen di wax reporter yi ngeen génn nii di wax seen waxi kasaw-kasaw yi défier leen ma kaay leen ñu défiyante ñëw leen ñëw leen ñu défiyante kaay leen yéen arène nationale a ngi noonu bu làmb amee samedi ci guddi ngeen daje fa di kattante ci seen biir samedi ci guddi arène nationale xoolaat leen foofu xoolaat leen caméra yi dégg ngeen seen temps xoolaat leen balaa ngeen di dof doflu samedi ci guddi buñ ne demaa suba la ngeen dem di monte ji ngeen ñëw ne da ngeen di jël information mujjee ñibbi waaye leen seen caaxaan yi waaye leen seen caaxaan laa leen wax fii noppi rek noppi kese da ngeen ñëw def seen jëf yu ñaaw nekk biir Sénégal yenn reporter yu jigéen ñi yàq mbër yu ndaw yi yenn reporter yu jigéen ñi yàq mbër yu ndaw yi ayeen xanaa yooyu da nga ñun dañoo dof ñun dofuñu di eh fii lu fi waay di def di ko nëbbu day feeñi te li ci gën a métti mooy du ngeen ay ceddo li ci métti mooy du ngeen ay ceddo dama koy waxaat Bakary sañ naa def taat nen maa def nday taat nen lu ngeen ci man waaye defee leen ma ñëw leen defee ma man xam nga ma nee leen wax naa ba pare te tudd ma woon tur léegi nag sénégalais yi ñoom seen jëmmi bopp yéen xam nañ yéen seen jikko yéen kenn ku ne ñu ngi lay xalaatee leen parce que gis nañ la nga def wala def nga koo xam ne ni kenn xam na ko yéen xam ngeen bu baax li xew dafoo leen dina jàpp leen ak ngeen a xam lu xew yéen seen jëmi bopp Bakary wax na ba pare ca tuddul tuur yéen seen jëmi bopp ngeen di jël nit ñi di leen takkalay chapeau naan diw ak diw te yéen seen xam ngeen ne ki ngeen di joxañ baaraam def na yéen xam ngeen ko mais kenn ku nekk yaa ngi bañ ñu yóbbu la kër maram biraan man ma la nekk leen nday nit nekk leen nday nit nekk leen nday nit dama leen wax lu dañ de nekk leen day nit ñun waxantu wuñ dama koy waxaat saa su ne ma la ma Paul daam fils de Mbengeen buur géwél buur géwél bi mu ko gisee daa tiit buur géwél bi mu ko gisee daa tiit ngeen wax man ñaat ñaata kilifa tey ñoo ma di ma ñaan njëkk ak teraanga ne ma Bakary gars ay kilifa lañ fi rey kilifa ci kër gi ci dëkk bi dam fils de mbeñe dama ko yonne vidéo bi mu supprimer mako direct nama bagari man saluma dem cybercriminalité manako eh man ma la yonne nday vidéo bi nga teye vidéo bi boy ñi ngi non wax le dama ngi non na wax ay dara la len ay dara ay dara mbacke ñass wala lay wax ne ala ah, boy mor cassé ay dara dam fils de mbengen souleyman jules jamaïcain jamaïcain yow gis nga jamaïcain gis nga vidéo bi moo tax nga xëy taxaw na yow sa yoon newu ci bokkoo ci jamaïcain gis na ko jamaïcain gis na vidéo bi fii wax jee fi ne rek Fatma Dia gis nga vidéo bi Fatma Dia Fatma Dia gis nga vidéo bi waaw lañu waxante dëgg mobile de gis na vidéo bi yaa di wax xam nga moo tax man damay bëgg nit ñi di wax dëgg te gis ngeen fii Bakary bu la wóoloo ba jox la vidéo ba wan la vidéo bu ñu la laajee neel yow man gis naa ah neel gis naa dama leen koo yónnee ngeen gis ko gis ngeen ko gis ngeen ko de gis ngeen vidéo bi waaw na leer ah yow sa waa ngeen nekk fii di wax yéen yéen su ngeen amee man yéen gars yi man ma yéen leen vidéo pour wax leen na leen yàlla mi ma tiim xam na ne du ma sosal doomi aadama loo xam ne nii amul amul ma nday benn njariñ làmb fayuma waaye li ngeen di jël di ko teg ci xale yu ndaw yi di leen jaay nday doole jàpp booy di kattante mel na ay bëy loolu ngeen war a baax takk nday seen i ndomb ba ci seen i nopp ngeen ne da ngeen di kattante léegi yéen apre ngeen ne waaw sama làmb ji dañ ma daan fii nangam ëmbal nday doomi jàmbur pour ngeen jox ko ndayam mu lekk sax problème la loolu yëpp yéen nga ut tuur ci làmb da ngeen waxatu dëgg baa leen seen caaxaan yi léegi nag ñi nga xam ne ni xamuñu coach Bakary lu muy kaas man li may kaas dama ko waxaat nee naa leen génn vidéo wu nit buy def tuuxi duuna ma njariñ li ma amal njariñ mooy le contexte social suñu rakk-rakkaat yu jigéen yi fi ne gars yi di leen gëmal loo xam ne ni du dëgg du yoon seeni ndey seeni baay seen loxo jotul seen ginnaaw xale bu jigéen bi am 17 ans 18 ans nga ñëw na yor dangaa yor promoteur nga dangaa yor licence su làmb yaa fi tëgg lii dëgg fi lii jàpp xale bi di dëgg oteloo otel nga yóbbu ko fa tëddee ko ba mu neex la na ko fa ñukk bàyyi dem sa yoon xale bi ragal mënu laa topp fenn mënu laa waxal dara tay maa ngi leen di waxal nag xale yooyu noonu ñoom ñoo dank li ko TikTok xale yooyu ñoo dank ko biir TikTok yónnee ma seeni vidéo ne ma coach waxal ñu xale yooyu ñoo ma yónnee seeni numéro ne ma coach waxal ñu xalé yoy ñoo leen vidéo ndax bañ ma ko waxee gëmuma ko woon xalé yi ñoo ma wax gëmuma mané vidéo rek xalé yoy ñoo leen vidéo yone ma vidéo yi xalé yoy ñoo ma yónnee seeni vidéo ma té té yéen xalé yoy yooyu yéenay nekk fii wàjjee fi ne rek ma la ngeen di dof doflu yéen xalé yi yéen nek ñaan passu magal mu bañ barki dé mu jox nga nday xalé bi 300000 francs 300000 nga jox xalé bi foko jëlé té passu magal la la ñaan nga jox ko 10000 yow xam nga ki may waxal yow xam nga yow li ma wax dofoo bi ngay wave ñun ñu ngi bi ngay wave ñun ñu nga gis screenshot bi nay leer moo tax ndànk rek da ngeen di yam de fii moom yam rek da ngeen yam de yam rek yam kese nee naa leen année bii année bii bu ma fi déggee kilifa kilifa toog juum ma katt nday vidéo bu ma fi déggee mbër mu bëre dugal nday tappale ma katt nday vidéo yi bu ma xëyee sama yaram xaw a naqari tuuti ma kat ndayi vidéo yi na leer loolu nëbb ma ci dara loolu laa leen wax dama ne la ñi ko war a yëg kilifa yi ko war a yëg yëpp maanaam tey da ngay gis kilifa goo xam ne ni xaritu kilifaam laa yónnee nday vidéo mu gis ko xam ne kii waayam la mu ne ma coach bàyyil mu sedd ngir yàlla jàpp ci coach bàyyil mu sedd jàpp ci ngir yàlla coach noo yow xam nañ la yow bonoo man dama la jënti man dama lijjanti nday yi ngeen naan coach bon naag bonut ay côté yoo yoo côté yor nday fi yam di ko dund bàyyi leen suñ xale yi ngeen di foowe bàyyi leen suñ xale yi ngeen di foowe boo ma bàyyi nga may woo